Ahmadou Bamba gëdd ak cofeel gi mu jox weeru koor tax na mu ko daan màggal ci anam bu mucc ayib diirub li mu fi nekk di ca jàngalu alxuraan ak i ba mu fi jógee nag moom ku tedd ki Cheikhul Khadim mboolem ñi ko fi wutu ñu ngi saxal jile jëf daan ko amal nag la ci ëpp fële ca njaarim mu di Jurbel kii di Cheikh Mountakha Al Bachir moom nag bi mu toggee ci xilaafa gi naam ña koy amal fële ca njaarim ba léegi waaye indi na ko itam fii ci Touba nga xam ne mooy capital lu yoonu murit di fi màggal weer wi di weeru koor mu ñu fi jàng ay xasida bis bu nekk dajaloo di jàng alquran ak i xasayit ni ko cheikhul xadim bëggee woon diirub mu fi nekk te ñu koy wéyal di ko amal fii ci dëkk bu sell bi li di Touba ñu koy taxawu nag moo di daayira bu tarxiya seeni kuréel nag toll ci juróom benn fukki kuréel ñu amal bés bu ne am njàng ci ndigalal Cheikh Mountakhal Bachir. diggante boo xam ne une heure de temps boo xamante ne weñ sax bu doon biiw di ko dégg ndax kenn du wax ndax lépp rek muy teewlu goo xamante dafay jëm ci xaside yi yàlla nag sédde Hizbut Tarqiyyah tawféex yi ànd koog moom muy ndigal loo xam ne daf ñu ko jox euh, ndigal loolu kon lam ci jublu moo ko xam ndax bu ne woon euh, ni mu ñu sante woon bisu xaside yi ñu yaatal ko ba murit yëpp ñu àndandoo bisub xasida bi bu ñu ko sante woon noonu it noonu lañ koy defee waaye ginnaaw Hizbut Tarqiyyah am na lu jege juróom-benn fukki kuréel mu ànd ko ñun dama jàpp ne xëj na la mu ci jublu mooy dafa am lu mu bëgg a wane loo xamante ne su xasee mokk feneen foo dem di nga ko fa gis. Sëriñ ji nga xam ni jox na ko weeru koor tax mu cay jàng alxuraan ak i xasayit di woote itam ñuy dajaloo di ko jàng. yëmu ca daan itam di bégal mbooleem koo xam ne nii weeru koor fekk na la fa te muy mu lay jox ndogu ndogu yooyu nag mooy wéy file ak daayira muxaddimatul xidma nga xam ne li génnee ci seen gafaka ren ëpp na juróom-ñetti fukki million ngir amal bis bu nekk lu toll ci juróomi junniy ndogu ngir jëbal ko mboolem jullit ñi nga xam ni bëgg nañoo ndogu file ci jumaa ji muxaddamatu xidma day mën nañoo wax ne li muy def ci koor gi lépp mën nañ ko delloo ci benn baat mooy action sociale mooy dimbale jaami yàlla yi ci luy tax seen koor gën a jàppandi loolu nag dañ ko def ñaari anam benn bi ci seen diggante ak seen borom delloo leen ci seen borom mi nga xam ne moo leen sant beneen bi ci des mooy taxawu leen ci wàllu dog euh, ni ngeen ko xamee at mu jot danañu daje euh, commission culturelle bi dana daje waajal lu toll ci fanweeri waxtaan wutal ko fanweeri waxtaankat yoo xam ne bis bu ne ñooy daje bu bu njëlee takkusaan ba noppi kenn def ci waxtaan ci jumaa ji. bu dee lu jëm ci wàllu ndogo yi nag moom bis bu yàlla sàkk lay doon bis bu ne waajal nañu ay ndogo loo xam ne. dana àgg ci mën a dogal lu mat juróomi junniy nit loolu itam ci yokk jumaa ji lañ koy defee li ñuy tuddee yokk jumaa mooy li xam ne moom la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké defaroon ci jumaa ji yëpp nag wet yëpp am na luy nekk ci wetuk ndeyjoor gi am na luy nekk ci sowu bi am na luy nekk ci wetuk càmmoñ gi loolu lépp mbooloo mu baree bare bare lay doon moo xam ne lu mu néew néew néew néew bis bu set lu mu néew néew gën jaa néew ñeenti ak juróom benn téeméer ak lu topp dañ fi doge léeg-léeg nag mu dem borom bu juróom junni ak nangam fulku bii nga xam ne ñu ngi koy jàng ci weeru koor te bañ ko dalee amal ak léegi mu yàgg lool ca Cheikhul Khadim ba léegi ñu ngi koy wéyal nag ci dëkk bu sell bile boole kook nag di berndeel ñi nga xam ne ay jullit lañ ngir ñu ñëw file di fi doge seenu koor lépp rek ngir jàmm ci yàlla ak liggéeyal ci Serigne Touba.